réseau sociaux yi nga xam ni ñu ngi koy jëfandikoo nga xam ni néew na lool nga dajeek nit te yërul jumtukaay goo xam ni ci la koy jëfandikoo internet boobu nag ak réseau yooyu dafa mel ne benn mur bu weex tàll yaatu lool gudd lool janook ay bunti néeg yu bari maanaam janoog bunti néeg yépp ñun nag sunuy kàddu sunuy bind sunuy jëf mooy këriñ gi maanaam këriñ gu ñuul kukk saa bu ñu waxee dugal ci réseaux sosiyo yi rekk mu ngi mel ne jël nga këriñ bind ci miir bu weex boobu buntu néeg yi nag képp ko ubbi sa bunt danga nga janoog miir bi su ko defee ñu gis ni kat diw sàngam rëdd na ci miir bi bu dee rëdd wu jub ñépp a koy gisandoo wala boo ku ubbi sa bunt gis ko bu dee rëdd wu dëng ku ubbi sa bunt gis ko groupe yi nga xam ni nag mooy groupe bi whatsapp yi ak facebook yeeg ba ci youtube yi kenn ku ci nekk lang ca wax ak lang ca dugal yow yaay responsable bi àdduna ak àllaaxira te lépp loo xam ne waaye nga koy dugal ci réseaux sociaux yii bu nu jàpp ne rekk ci àdduna la yam waaye borom bi tabaaraka wa taala daf ñu koy laaj bu yow qiyaama yàlla nee na إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا dégg yi nuy dégg mboolem lu ñu mës a dégg ci àdduna lu ñu mës a wax ci àdduna fépp fu ñuy jublu ci àdduna suñuy jëf lépp borom bi tabaraka wa taala nee na danañu ko laaj bu yowmal qiyaame kon lépp lu waaye di dugal ci réseau yi na ko bàyyi xel mbokki jullit yi xoolal sunu réew mii nga xam ni mooy senegaal bokk ci réew yi gën a tuuti ci àdduna bi benn njombe dong boo ko waxoon ci Facebook wala ci WhatsApp mbaa foo ko mën a dugal ci réseaux sociaux yi benn njombe foo mën a nekk ci réew mi daañu la jëli foo mën a nekk nag ci réew mi nga def njombe dugal ci Facebook mbaa WhatsApp mbaa foo ko mën a dugal danañu la jëli ak foo mën a nekk pexe googu nag ak kattan googu su ko réew mii manee te bokk ci réew yi gën a tuuti ci àdduna waaye borom bi tabaaraka wa moo ñu ko gën a man lu waay di wax ci réseau yi mbaa nga di ko ci dugal na nga xam ni borom bi dina la ko laaj yowmal qiyaam bu dee lu baax danga nga ca am pay gu rëy bu dee lu bon borom bi tabaaraka wa taala bëggul koy def lu bon te lépp lu ci waay bind mbaa nga wax ko ci mbaa nga def ko ci muy lu baax di digle am nga ca tuyaaba te la nga digle képp ku ko jëfe tuyaaba ya na mu toll ca ña ko jëfe di nga amaat lu toll noonu loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax te képp ku ci dugalit lu ñuy tere ni yàlla tere na nangam nit gis ko mbaa mu dégg ko mbaa mu liir ko bàyyi loolee yàlla tere yow de mi ko dugal am nga tuyaaba ka ko bàyyi am na tuyaaba ñooñu ko bàyyi ñépp lañu am ci tuyaaba yow di nga ko am ci tuyaaba yow mi ko dugal loolu xéewal la mbokkum jullit kon réseaux sociaux yi war na nekk yow sa buntub tuyaaba waaye lépp lu ci waaye dugal ci lu xaraam nit xool ko gis ko jëfee lu xaraam loola yow mi ko dugal am nga bàkkaar ka ko jëf am na bàkkaar ña ko jëf nuñ mën a toll bakar yu ne toll ding ko am yow me ko dubal kon yow julit bul def réseaux sociaux yi muy sa buntu bi lay jural bakar mukk te lu wax ak fo meuna nek borom bi tabaraka wa taala mi ngi lay deg yàlla neena na maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn kàddu bu di wax ludul ni borom bi neena amna ñaar ñuma ma bàyyeeg yow ñu diko enregistrer diko bind diko denc ngir ëlëk yowmal qiyaama ak lu way mëna wax muy lu reuy ak lu tuuti lu way mëna wax kon yow julit bi gorlul ba li ñuy enregistré ci yow mu don lu bax waye nak yàlla waxat ni wa inna alaykum la xaafidin kiraaman kaatibiin ma taf'alun yàlla nee na yéen ñi ñëpp day boole naa leen nag ñu leen di wattu muy ay malaaka ñu baax ñu tedd lool nga xam ni dañuy bind lépp li ngeen di wax ak di ko jëf ak foo ko mën a waxee foo ko mën a jëfe dara du leen ci rëcc nag waaye mbokkum jullit bi yàlla waxee li lu ci teg daf ni inna al abraara la fi naim wa inna al fujjaara la fi jahim ñu bax ñi day danañu tabbi aljanna ëllëg yowmal qiyam ñu bon ñi dana danañu tabbi sawara ana ñan ñoy ñu bax ñu bax de moy ñi nekk ci lu bax di diklé diko jëf di ko fep nak ana ñi bon moy ñi jëf-jëf ju bon di fessel ak di ko fep nak kon dal réseaux sociaux ya ngok mur la bu tal ñépp a ci bokk yem aay wuñ ko kenn privé wuñ ko kenn ñépp a ci bokk yam mur bi nag buntu néeg yépp a ngi janoog moom ku ubbi sa buntu jàkkarlook mur bi loo fa bind nag danañ xam ni yaa fi bind bind gii bu dëngee ñu xam ni yaa bind lu dëng lii su jubee ñu xam ni yaa bind lu jub lii te ab jullit dafa war a am màndarga màndarga gi mooy di jëf-jëf ju baax ak di ko wax ak di ko fësal di ko tasaare fépp lii mooy mandarga ku baax waaye nag ku bon ba tey am na màndarga boppam mooy jëf-jëf ju bon di ko wax di ko jëf di ko fësal di ko kon nag internet bi nañu góor-góorlu ba mu nekk sunu buntub tuyaaba waaye mu bañ a nekk bunt jurali bàkkaar mbokki jullit yi